asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi safoo seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara am mbégte lool dellu si am rek lu mu bëgg a fàttalikonte ak yéen mu jëm ci at mi nu nekk di atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent deux mille vingt ma di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bisub tey bii di ñaar fukki fan benn ci weeru septembar muy septembre nga xam ni ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ci la julli woon ci géej gi diggante Ndakaaru ak euh, Conakry mbokk yi mu am nag lu ma seetlu ci at mi bëgg leen koo baaxee xëy na am na ñooñ sax bàyyi nañ ci xel loolu mooy lan mooy bu ñu delloo ci gannaaw téeméeri at ak ñaar fukki at ak juróom-ñeent te moo ñu yóbbu ci atum 1895 at mooma weer wi nga xamante ni ci la sëriñ bi génnee ca këram nga ca Mbakke Bari doon weeru août benn panub alxemes la woon alxemes ja dellu si di juróom-ñett ajuma juróom-ñeent gaawu di fukk ñu génne ko mbokk yi téeméeri at ak ñaar fukki at ak juróom-ñeent weeru ut wi benn panub alxemes la na mu ko doone woon ca 1895 bis ba ñu génne woon sëriñ bitam tam di gaawu doon le 10 août ren le 10 août gaaw la dajeel bi ñu yóbboo sëriñ bi ndar altine di fukki fan ñaar ci août lañ ko dugal saxaar Louga mu dem ndar fukki fan ak ñaar itam ren ci août bisub altine la bi sëriñ bi yeggee ndar

bisu dimanche la woon waaye weer wi nga xamante ni ci la sëñ bi génn ci fukki fan ya fukki fan ya ak ñaar ñu dugal ko saxaar ndar Louga mu dem ndar doon bisub altene ren jiitam fukki fan ak ñaar ci weeru ut altene la bi sëriñ bi eggee ndar itam ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci la le directeur des affaires politiques Merlin bind rapport ba nga xamante ni ba bis ba dellusee moom lañu dawal maanaam moom lañu liir ca kanam conseil privé ba le directeur des affaires politiques mi ngi ko bindoon alxemes ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août ren jiitam ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août alxames la dajeel bokk yi alxemes juróomi fan ci weeru sattunbar ci la ñu sëriñ ba ca bureau ba ren jiitam juróomi fan ci septembre alxames la dajel fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre 1895 doon bisub alxames ci lañu ñu dugal sëriñ bi saxaar ngir yóbbu ko ren jiitam fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bisub alxames la dajel bi sëriñ bi yeggee ndakaaru itam ñaar fukki fan ak benn ci weeru sattunbar di bisub gaawu ci la ñu ko dugal ci batu boobu ñu doon wax ville de Pernambouc ngir yóbbu ko Gabon tey jii di ñaar fukki fan ak benn ci weeru satumbar bisub gaaw la kon loolu yëpp ay xew-xew la yu xewoon boobaak léegi téeméeri at la ak ñaar fukki at ak juróom-ñeent waaye bis ya xewoon ci la xewaat te daanaka màggalug Tuubaa itam di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar daanaka tuuti rek mu dajeeg lëlub weeru tubaab bi ndax xam ngeen ni màggalu tuubaa gi day fukki fan ak juróom-ñett lañ koy màggal di bis bi sëñ bi génnoon di gaaw ren jii nag ajjuma ja nga xamante ni ca tàkkusaan sa ca la sëñiwu taalif xasid ak asbunallahu wa nihmal wakil nga xamante ni tàkkusaan jooja ba muy dellu si ma ngi ko jullee jeewal tuuti màggal gi doon bis boobee ndax màggal gi ren ajjuma la di bis bi nga xamante ni ci la sëñ bi waaj nag ba sëñiwu ba def xasida googu yi ca Mbàkke Bari ca suba sa di gaawu la sëriñ bi génn waaye ren jiitam daanaka bis booba la rek bu loola wéyee itam ñu seetlu ni yonent bi sallallahu alayhi wa guddi altine gi nga xamante ni ci la feeñoon ñu di ko màggal fii muy mawlud di gàmmu ren jiitam guddi altine maanaam dimanche sa guddi bët set di altine mooy guddi altine ci la ñu gàmmu gannaaw sallallahu alayhi itam sunu bunt ci sëriñ Touba di borom daarul Muxti fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu la feeñ di bisub alxemes ren jiitam fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu bisub alxemes la kon feeñu yonent bi solo alayhi wa sallam ni mu dellu see ren ci mille 2024 ca bis ba mu feeñoon feeñu borom daaru mu tiitam noonu la dellusee ci dellu mille ci 2024 ci alxemes jëmu feeñoon mbokk yi lii daal dama ne woon duma ko bàyyi mukk mu jàll te fàttaliwuma ko bokk yi nga xamante ni mën naa am ñoo xamante ni bii seetlu nañ ko ni ma ko seetloo waaye lii daal xew na ci deux mille vingt quatre yi di mbir mu yéeme yéeme ma ne woon kon naa ko baaxe bokk yi kon maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.